li xew ci Sénégal moom euh, bett na ñëpp de yaakaar naa. même ñu hmm. doon yaakaar ne sax am na lu ñuy romandaat mais. Hmm. man sama wàllu bopp moom dëgg la on a on a tout vu dans ce pays. Hmm. en matière euh, de jalgati yoon. Ah. et souvent sax mu jóge ci ñoo xam ne ñoom ñoom ñoo war a protéger yoon boobu. mais malgré tout ça yoo xam ne dañ ko dund étudier ko jël ci ay position musuma yaakaar ne euh, président de la République Macky dina dem ba dépasser limites yi à ce niveau pour man am na limite boo xam ne ni loolu la pouvoir jaral jaral jaral doo ko sañ laal parce que dafa laal loo xam ne moomu ko wallaay moomu ko partem moomu ko. même institution bi muy représenté président république moomu ko. moomu ko institution assemblée nationale moomu ko. Mm-hmm. benn institution moomu ko xam kan moo ko moom askanu Sénégal. Mm-hmm. dafa laal ce kii est le symbole de la souveraineté du peuple sénégalais. Mm-hmm. xam nga ñun suñu démocratie nañu ko tëggee nii euh, avec ses failles. mais ñu siy dox. Mm-hmm. depuis bi ñu ko colon bi bàyyi ba léegi. Mm-hmm. Euh, si citoyen sénégalais maanaam peuple bi ñëpp boo leen chaque citoyen individuellement nga am ak yelleef muy nga yemale ko ak sa moroom. Mm-hmm. benn occasion rek la ñu am pour jël une décision. boo xam ni dafay dugg lu ñuy gérer réew mi benn occasion rek la muy jour élection seen décision bi mooy vote bi ñuy def loolu rek la citoyen sénégalais am ci pouvoir de décision hmm. dans la marche de la république loolu kenn mënu ko parce que diggante bi après ñi nga fal dañuy def lu leen doo ci mën dara da ngay naxarul rek wala nga dem marche wala nga dem ci rajo yi ñaxtu mu jeex amuloo benn pouvoir donc loolu kenn warul nangu ñu laal ko hmm. moo tax man dama bokk si ñu jàpp ne lii nii c'est pas un acquis loi bi parce que loi bi baaxul. loi anticonstitutionnelle la donc pour man loi bi amul. te pour man sénégalais yëpp ak citoyen yëpp foofu loolu war a doon seen taxawaay il faut refuser cette loi. nier ko pour restaurer li nga xam ne ni mooy. l'état de droit dans ce pays ak la légalité constitutionnelle mooy lan mooy dañoo war a def élection présidentielle selon le calendrier républicain